ñu leen di gërëm ñu leen di sant di ngeen ma may ma may ma njëkk a waxtaan ak yéen loo xam ne du gudd su ma paree dina waxtaan tuuti ci kàllaama nasaraan ak communauté international ak presse étrangère bi fi nekk it ndax bëri nañ fi su ngeen ma mayee tuuti rek calme parce que message bi dafa am solo message bi dafa am solo kon maa ngi leen di ñaan tuuti dal rek wax ji du gudd xam ngeen li tax wax ji du gudd sama frère Barthélémy Diaz daanaka tënk na wax ji. nekkatuñu ci jamono ay discours yu gudd jaru ko lenn rek laa leen di laaj li ma leen di laaj mooy ndax pare ngeen pour xeex.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 moo budaya bu dengan parewu leen da teknologi ñu naan muda ñu baik budaya teg mbir yi Macky Sall mu def def ngeen man ak yéen a ci yem suñu bakkan nañ ko tayle gis ngeen fii luñ dissertation ci Macky Sall Macky Sall respecté wul sénégalais faalewul sénégalais Macky Sall du gor Macky du naxante moo ko fi jëlee amul kenn Sénégal du kilifa diine du mouvement citoyen du parti politique du mag du ndaw amul kenn ko Macky Sall respecté faalewul kenn bëgg bëgg moom ak soxnaam ak i doomam ak ñi ànd ak moom loolu rek la xam jàpp ni keneen ku mu mën a la rendi la fees la jaay yàpp ba wala mu seddoo ko moom njabootam toog jàpp njàmburam moo tax ku mel noonu yàgg naa leen ko wax rapport de force la Macky xam bu ñu xeexul ak Macky Sall ñun ñii ñëpp Macky dina jaar suñu kaw moo tax nag bu dee pare ngeen pour xeex bi na xam ni bii paa buñ ko doore amul taamoor amul dellu gannaaw te xeex bi nag ay niveau la ay degré la premier degré bi xam nga men booy mooy ban mooy dem leen bindu ji ci liste électorale yi parce que tappale yi muy def yëpp pour bañ ndaw ñi dem bindu ci liste yi la nee na un mois la koy def waaye boo calculer ba ci biir matul sax vingt-quatre jours ndax boo génnee dimanche yi génne fête yi matu 24 jours Motax bu len tok ba dernier moment ngeen di jóg bu ñu ubbi nañ ko suba dama bëgg fépp fu ñuy mu ñuul ak dem premier degré deuxième degré bi Macky Sall am candidat en 2024

muy tànn kan mooy dem élection ak ku dul dem Macky Sall nee te yaakaaru lu dul justice magistrat yi moom leen ko magistrat yi moytu leen seen bopp parce que réalité politique yàlla def ko ay millions de sénégalais topp ci yow benn magistrat nga ne maay dem toog sama kër moo xam Macky Sall dalaa jox xaalis. wala dalaa jox promotion wala dalaa xoqatal nga ne man maay tere kii nekk ma euh, candidat bu kooku nekkul candidat it yow sa nekk ci réew mi dina jafe bu nekkul candidat sa nekk ci réew mi dina jafe magistrat yi moomu leen Sénégal kenn du fi nekk naa leen ragal leen yàlla parce que xamu leen ko seen yoon newu ci waaye comme nag da di jaay ni une force restera à la loi la loi est la loi du peuple que vous êtes donc force restera au peuple sénégalais man de man Ousmane Sonko dama décidé Nous président Khalifa Sall bi mu tollee fi ma dafa bëggoon a won sénégalais ni mom homme d'état la bëggoon sénégalais ni mom républicain la bëggoon sénégalais ni mom dafa gëm institution yi ñu taxañ ko laxas ko justice jaay ko doole ñu téré ko mu nekk candidat moo tax man institution Macky Falle ou république Macky ou justice Macky Sall Falle parce que sommes... parce que hors-la-loi dans ce pays Nous sommes hors-la-loi sommes nous la loi les institutions la république mettre au service d'un parti politique d'une famille et d'une personne ak xeex bi lu mu laaj ñu jàmmarloog ñoom farata la moo tax ma ne leen sama discours bu weesu loolu de les hypocrites yi toog fële naa nitu fitna lañ j'assume man je l'assume je l'assume ba fu mu yem ndax ku fi seetaan gis nga ko fi seetaan ba ñu def la li def ba pare ñi ñëw ñëw di la jaay ay naan ñoom ñooy les républicains ak di la jox conseil fi ñu toog la ñuy toog naan ndeysaan prison sax duñ la fa seet si mbokk yi on s'est beaucoup battu pour un projet te projet boobu mooy sauver le Sénégal ay at juróom-ñeenti at ñuy xeex ñu nit xaalis sàcc ñu xaalis réew mi joxe ko digguñu nit ñi lu amut. waaye dañoo bokk ak yéen ay xalaat ci li wara defar réew mi jële fi nger ak sàcc xaalis jële fi nooteel gi nga xam ne noot nañ ko Sénégal dog jag mbuumu jaam gi delloo si alal réew mi ci réew mi seddale ko ci séddale séddale bu maandu lii lenn la ci suñu projet bi ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex biñ koy door matuñu woon fukki nit

tax ma ne leen Macky Sall fii mu toll nii ci ñett la yaakaar mi ngi yaakaar ci ay milices jël na ay nit ñun xam nañu ñan ñooy recruter ministres yi xam nañ fi ñu dëkk yor nañu seeni information yéen seen yi lay wax bis bu milice génnee song fi ay nit fu ñu munti nekk fekk leen foofu ba si seen biir kër fekk leen foofu. les forces de défense et de sécurité xam nañ milice yi de am na police bi kenn du leen ñun wax gatsa police gendarmerie de si vous avez quelque chose entre les jambes bàyyi leen police fële ngeen bàyyi gendarmerie sincère naa wax de ñun xeexuñu ñun yoruñu armée yoruñu ay ngàndaay songantewuñu ak police ak gendarmerie lu dul ñu war a def suñu manifestation police ne du fi amee ñu ne dina fi amee ñu def li ñu war a def mais su weesoo loolu ñun bi ñuy wax gatsa gatsa xam nga ñañ la ñuy wax c'est poltron de la paire sàcc xaalisu réew mi dem di fay ay ministre foog ni loolu mun na leen sauver yàlla xam ni bu police jóge woon fii gendarmerie jóge fi ñoom ñëpp ñu génn réew mi. dama ne réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main yeneen réew yi ko def gënuñu ñu. gënuñu ñu wallahi yéen laa koy wax la jeunesse 2024 ñu soppi réew mi 2024 changement commencé fi ba faw 2024 yorin gu ñaaw gi ñu yor réew mi jóge fi définitivement loolu nag lañ leen bëgg a xañ est ce que di ngeen ko nangu moo tax ma ne leen le 14 le 15, le 16 autorisation ou pas nous ak Macky Sall justice avec police avec gendarmerie nous ci police Nous gendarmerie nous savons nous sommes les milices avons leen jàpp Nous pourtant léegi qui ñuy commencé meeting bi nous nañu kaba bi Parcelles police jël si na ko mi ngi commissariat central suba ñu xëy ne terrorisme lañ ko attaqué ñu ngay wër seen renseignement généraux naan dañoo jëlee ay nit Casamance andi leen fii ñii nekk fii yëpp waa Ndakaaru lañu waa Casamance da ngay manifester Casamance waa Mbacké dinañ manifester Mbacké waa Ndar dinañ manifester Ndar kenn importé wu fi ay nit Macky Sall nag li ma koy wax du bëri. dafa jeexal tak tak tak tak ñaar moo am Barthélemy wax na ko na rafetal demam ni Abdoulaye Wade demee woon Abdou Diouf ko mu dem bàyyi ñoog suñu réew ci jàmm defu ko nag ah Cheikh Tidiane yu wax Cheikh Tidiane yu wax na ko de demam dina ñaaw lool lool lool dina ñaaw lool Mais lancer un appel à nos forces de défense et de sécurité Nous, li ñu gën les am li gën li sacré ci Sénégal C'est armée sénégalaise l'armée sénégalaise les la sénégalais bëgg kenn Qui ne ci ñun bëggoon na nekk soldat kenn Qui ne ci ñun bëggoon na nekk soldat ñenn ñi nous nañ koo nekk comme des Fall ñun ñi essayé nañu concourir sax ko nekk soldat parce que amul lu gëna a jekk joxe sa bakkan ngir sa rew armée sénégalaise bobu yàgg naa sauver Sénégal léegi ku mai 68 professeur Abdoulaye Bathily mu ngi ñuy lettre bi nga xamné général Jean Alfred Diallo moko ko président sénégal. ne ko l'armée ne te jamais marcher sur le peuple lii ak lii ak lii na ko bàyyi lii ak lii ak lii ak lii ko def loolu mooy l'armée sénégalaise armée boobu mooy le salut du Sénégal à cette armée ma ne leen bu ngeen nekkee dans les tranchées en Casamance ou partout dans le monde nekkalu leen fa Macky Sall peuple sénégalais ngeen di ko nekkal président dem na. président ñëw l'armée demeure c'est une armée républicaine c'est une armée du peuple sénégalais Vous devez finir ñu jëm Macky Sall bëgg na def ni def nous demandons à l'armée de jouer son rôle comme nous mu ko mos a joué te xam nañu nag li xew ah, ndax Macky Sall li muy bëgg def ci depuis quand aide de camp aide de camp kan kañ la musa doon général ci armée bi aide de camp au président de la république jël benn aide de camp général Sélé Maysa Sélé bugg koo teg ci kaw semga bi nga xam ne sax moo jiite armée bi parce que rek am na lu mu bëgg te suñu armée républicaine bi du ko musa nangu je dis à l'armée, vous avez le soutien du peuple sénégalais. Restez une armée républicaine, restez auprès de cette jeunesse, restez auprès de ces femmes, restez auprès de ces personnes âgées. Le Sénégal vaut plus et vaut mieux que Macky Sall. Gendarmerie nationale, malgré les leen di ñaan ñu delloo ci xel ci de xamna naa lu ëpp 1000 gendarme ñu ngi ko yóbbu cité kër góor gi nañu delloo ci seen xel ñun gendarmerie mënu ñoo tere egg fi ñuy egg police ñoo tegg egg egg fi ñuy yegg parce que le peuple sénégalais est le seul souverain te kenn mënu koo tere yegg nañu bàyyi di essayer topp Macky Sall dans son aventure sans lendemain le Sénégal vaut 100 fois mieux et plus que Macky Sall et son petit groupuscule. La gendarmerie n'a qu'à rester une gendarmerie républicaine. La police n'a qu'à rester une police d'État. te ñu bàyyi seen tappale yi ñu nekkee nii kon mbokk yi jamono di jamono discours yu le 14 def nañ suñu meeting.

dootuma te le 16 c'est une audience publique bu leen kenn imposé ne leen yéen amu droit dem tribunal ñi fi teew ñëpp nañu dem tribunal audience publique Ken a amul droit les Indiens. ñi duñu dem moo wax nag ni le 16 mënuñu juger lii de parce que paraparaxe bi ñuy def jaru ko récuser juge bi parce que juge bi la ci ñom xarit la ci ñom ko xam nañ ko juge bi mënul juger dossier bi samay avocat récusé nañ ko na tek dossier bi ñu juge objectif le 16 mbokk yi na ngeen teel a ñun ñëpp ñu dem tribunal je voudrais lancer quelques mots en français pour la presse internationale ici présente. Je voudrais lancer quelques mots en français